tous les jeunes yi nga xam ne dañ doon dem permanence APR di joxe seeni dossier parce que li xew lu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw l'occasion rêvée parce que nag li ñuy wax guddoo bi de faire déverser le ajimat gàtkadu la la parce jàppoon naa ni keneen dina def loolu ba mu des moom jàppoon naa ni keneen dina dem foofu ba mu des moom parce que nag Aysatu pour man soxna suy muuru solu ibaadu nekk ci diine tegu ci siraatal mustaxim doo wor lii contre la mhm. la promotion de la contre-valeur fi ci Sénégal. Mhm. dafa graw gis nga nima ko don bañé demb ak barke -hmm. rappelez-vous du fameux discours de de Ousmane Sonko ba ko bañ ko bi ngeen tégon bi ngeen don teg fi fan yi mhm. mi ngi ko wax moment yi transhumance yi -hmm. sénégalais diko di mm -hmm. lan lañuy jangal suñu doomi mm -hmm. lan lañuy jangal askanu Sénégal. Mhm. mooy su la neexee tey nga nekk fii. Mm. suba nga nekk fee. c'est ça sans gêne. c'est-à-dire mooy nañu jàngal fenn suñu njaboot bi parce que soo nekkee fii wax lii tey suba soo nekkee fee di nga wax leneen. Mm-hmm. te soo waxee leneen rek wax nga wax ju waru wax ju waru nag fen lay andi. Mm-hmm. nañ ma baal ci kàddu gi ñu may déglu nañ ma baal. maa ngi mm-hmm. tout bëgg jéggulu ci kàddu gi. te xam naa ni li xew ci senegal guddi yi ñu toll. ci ay nit yu taxaw. di jaay seen ngor. neexul askanu Sénégal c'est le Sénégal qui est en train de perdre ses valeurs Le Sénégal dafa amoon ay références gis nga soxna si am na fooy bokk da ngay jommal sa bop yu bari mais am na bok, suñu xolé sa passé démb ak barke démb say mam ay kat lañ woon nañ ma balak, nañ ma balak, ak ci kàddu yi nañ ma balak ak quoi parce que am na xamantene xamante ku ko xamul rek xamoko ko mais wor soo ko defee mu jik la ren ba dewen c'est parce que dañ la koo jiiñ liñ la doon wax amul mais du Sénégal bobu lañu soxla Sénégal bi nga xamni deug dëgg ak fulla ak fayda ci taxaw Farba Senghor bi ñu doon saaga Farba Ngom biñ doon saaga démb waaw naan que c'est le dernier c'est la dernière campagne électorale pour mo len gën ñom ñoom non dafa ñaaw merci adis. wallahi mo len gën ñom ñep waaw moo gën xol de. xam nga Farba dafa jëlon décision bàyyi politique sénégalais yi xamuñu loolu. Mhm. Macky Sall mo tax mu taxawat deugal bopam mhm. ne tànk mi ngi soxla damay wax damay wacc xex xeex. bobu mo len gën ñom fouf téeméeri junni yoon. fier ci doon géwél. et eh bien fier te wax ju ñaaw adus yow fii Sénégal Sénégal fii Sonko laal na ñett yoo xam ne kenn du ko laal laal na ay Casamance laal na général Kandé armée mais xoolal saa chaque fois quand il parle de Farba Ngom géwél bi lay wax géwél pour géwél wala géwél da lu nit dama ne géwél du nit géwél xoolal waaso yooyu xoolal wax ju ñaaw jooju xoolal ba pare moom mi ngi ànd ak ay géwél fii kër Sénégal kan moo amul xarit géwél ka amul mbokk géwél dama ne amul jëwal mais mais je veux dire xoolal xoolal tey tey abul xoolal abul lu gën a ñaaw Saliou waa ma retour xoolal déggul Farba la bi tiit ay ragal nag man duma ak ragal nag man weesu naa fi ragalee nag waaw weesu naa ko man xokkatal bi tiitaange bi man dama faale loolu man yàlla dimbali na ma musuma gérer budget état li ma yàlla dénk sama wërsëg bopp la mais daf ma leer na ne yàlla def ci boole jaamu yàllay moo tax mu jox li ma jox te dama gis ne man benn gaalaat laa yor bu may génnee di maye rek chaque jour muy yow moo tax du ma taxaw voilà te loolu dama teel a préparé sama njaboot man baay bi ma jur askan bi ma bokk ay géwél lañu te ma ci tiitaroo lool sama baay bi ma jur dama koo fekk wayaankat la di yëg fu ne di wàcc fu ne ñu koy dimbali kon nag man ku xam adduna laa ci loolu laa xamee adduna teel naa tukki lool bu may am 19 ans di 20 ans xam naa adduna dara jaaxalu ma dara jombalu ma man loolu waral nag wax dëgg yàlla. xam nga bii addu àggali xam nga tey non bi lii te gis nga Farba li mu wax nii Farba dafa tontu tontu bu rafet la tontu. tontu bu am solo mais tontu bu diis bu fort parce que Ousmane Sonko lu tamay Ousmane Sonko c'est un danger pour la cohésion nationale moy Ousmane Sonko fay lal lu fort ñun da fay lal suñu diiné day lal suñu suñu bëggante day lal li nekk suñu force ak suñu diversité. day tas si dëkk. xoolal day day tas réew. yow yow noo mën taxaw xoolal yow Farba Ngom nga xamné ci ay mbokam xoolal Farba Ngom nga xamné sénégalais la di kilifa di liggéey man Farba ba nga xam France la ko xamé Farba xamé ma ko ci ay Macky Sall xamee ma ko ci ay politique France la ko xamé muy daan dolem di liggéey fi Sénégal ni mu amee ay xol ñun ñun ñun ni ñu réglé problème caste moy comme voile yu mu laal voile affaire chrétien yu mu laal xol ñun ni ñu réglé problème caste Ousmane Sonko ah, et puis il est tellement méchant tellement méprisant quand il parle des gens il les déshumanise xol mu na djewal boo mais djewal waru jang géwél war a am ay milliards xoolal ma naan géwél boo xam ne dégg nga di doxandoo ay milliards ah. xoolal ba ba xool xoolal xoolal kàcc yi Farba Ngom day doxandoo ay di joxe ay cinquante million xoolal ma kàcc yooyu mais surtout baatu géwél moo ñaaw moo salte mu Ousmane Sonko génnee ko ci laam ña te pourtant waa Pastef pa jibi Pastef mais est-ce que ñu fa nekk ñëpp ay joolaa lañu ñu fa nekk ñëpp ay olof lañu ñu fa nekk ñëpp ay géwél am am na ay géwél am ne. ñoo ñàkk fayda la. ñu xoolal ñooñu topp Ousmane Sonko moo tax ma ne Ousmane Sonko c'est un danger. nawloo leen dama ne. mais moom mi ngi wax waaw ñëwal. ñi ànd ak Ousmane Sonko yëpp. su leen far ba gënul kenn gënu ko ci. dëgg la. parce que loolu dëgg. dëgg la. dëgg mooy suñu boroom doomu aadama la wax waxul gëwël waxul tëgg waxul waaso waxul leneen. Mm-hmm. loolu suñu borom wax. te li muy wax ci Farba Ngom waxu ci dëgg waxul dëgg du nee na dernière élection campagne électorale bu Farba Ngom di nekkee candidat ngi nii. moo mooy yàlla. déggoo li mu wax fii laa la koy waxee est-ce que woon na ko su ragal su moytuwul. dernière campagne électorale am ngi nii. waaw man loolu laa gën a gëm. man Bossom laa gën a gëm. alxuraan la gis. ah ma moytuwul ah, ah, moom Ousmane Sonko bi wax loolu. dernière campagne électorale parce que Ousmane Adama Fall loolu mu wax noonu yàlla la défier. billaahi wallaahi taala. te yàlla kenn du ko défier. te incha allahu rabbi campagne électorale la mu ngi nii. Ousmane Sonko de bala mu fa taa. su mënee <laughs> su mënee. na dem su mënee na jéem. waaw ah, na jéem. parce que nag am na doomu aadama yu ñu dul laal de ci àdduna. ah moom dina ko xam nag assez dépend. xam na bu baax li mu li ñu wax xam na ko bu baax. su ko politique jaralee nga dugg ci waasu as mhm. Sénégal parce que Sénégal nag dafa am loo xamante ni teraanga la fii mhm. ñun dañoo am ay valeur quoi ay vertu yu ñuy incarné suñu réew dañoo am ce qu'on appelle la cohésion sociale bilaay dialogue islamo-chrétien musul am Sénégal te dañ koo yàgg dundu mu bëgg koo tas mhm. mbirum yooyu muy tudd doom sax bëgguma sax jaar dañ ko yàgg dund mi ngi koy bëgg a tas nañ ko bañ ba tëdd

mooy mu ngi xë merloo doomu aadama yi parce que nit ku tekki dara rek ñu ne da sàcc. da nga fan lañ ko teg. mooy la revanche li gën a garaaw mooy nit koo xamante ni waaye waaye Doudou fan nga gis R plus 1 buy jar 1 milliard 600. ay ay kàcc kàcc direct. R plus 1. mu ne loolu lañ ko taxé. 1 milliard 600 waxul dëgg. wallaahi waxul dëgg. Mm-hmm. mingi berne ñi muy waxal. Hmm. koku su démé di jël ay nit pour la transhumance du ma bett man. Hmm. du ma hmm. parce que nag Aïssatou. ñooñu mu jël il y a sept mois. ces gens-là avaient tous perdu. dëgg la. qui a gagné Kolda c'est pas le passif c'est pas basirou Diomaye. qui a gagné Kolda Kaolack. c'est pas basirou Diomaye. fi Adji Mergane Kanouté fi mu dëkk bureau de vote am dañ koo duma. Mame Boye Diao bureau de vote dañ koo duma. dëgg Balde bureau de vote dañ koo duma. Déthié Fall bureau de vote dañ koo duma. moom ay perdants la ay losers. il a pris que des losers. des perdants la dajale. la. ces à perdre parce que ce sont des ce mhm. adduna nag adduna bés bu la mara naan taxee naan petit. su robinet ubbee nga rus mm-hmm.